benn koren juróom dégg nañu sax ñu naan am na kuy mooy yàlla ci seen biir mooy gu ñu toll duñu ko gis sax ci ñi xamul yàlla dem na ba am ci yéen kuy sëy ak jabaru baayam moo ne yéen de yéen a ngi tiitaru waaye dangeen waroon a am naqar ba dàq kiy def loolu ci seen biir man nag jëmm ji sori na leen waaye xel mi mu ngi ci yéen te àtte naa xaat kiy def loolu ni su ma teewoon ci seen biir dogal naa ngeen daje ci turu borom bi yéesu te sama xel teewe ko ànd ak doole borom bi yéesu ñu jébbal nit kooku seytaane yaramam yàqu ngir ruwam mucc keroog bisu borom bi seen tiitar bi jekkul dara xanaa xamuleen ni tuuti lawir day tax tooyalu farine bépp funki ni ma leen ko mën a misaale jële leen fi bépp lawir bu yàgg ngir ngeen sell ni tooyal bu bees bu amul lawir ndax nekk ngeen ko ba noppi ndaxte kirist deyaal nanu ca bant ba mel ni mbote mu ñuy rendi jébbal ko yàlla ca màggalu bésu jéggi ba kon nanu màggal suñu màggal waxuma ak lawiir bu màggat bi misaal kiñaan ak lu bon waaye ak mburu mu amul lawiir maanaam ci xol bu laab ak ci dëgg bindoon naa leen ngeen bañ a seq dara ak njaalookat yi bëgguma ci woon limaale waa àddina maanaam njaalookat yi nay yi njublaŋ yi ak xërëmkat yi su ngeen sequl ak ñooñu dara kon faw ngeen génn àddina li laa loon bëggoon a wax bu leen seq dara ak ku ñu tudde mbokk mu gëm kirist te fekk day njaaloo walla mu nay walla muy xërëm walla muy xas nit walla muy màndi walla muy njublan nit ku mel noonu moom bu leen bokk ak moom sax far di lekk ndax man maa war a àtte ñi bokkul ci mbooloom ñi gëm kirist déedéet waaye ñi bokk ci seen mbooloo yéena leen war a àtte ñi bokkul ci mbooloom ñi gëm yàlla moo leen di àtte waaye yéen ni ko mbind mi waxe dàq leen ci seen biir kiy def lu bon